ndax Covid 19 ji moo taxoon ci centre régional bu Agrimettre ne bu SILS di centre africain pour euh, l'application de la météorologie et au développement ñu koy wax euh, ak MAD. Euh, nga xam ni dafa tënk mbooleem service yor wàllu météorologie ak itam li nga xam ni mooy wàllu hydraulique sukkandiku itam ci liggéey boo xam ni liggéey nañu ko ak waa OM muy organisation bu météo mondiale. ngir ñu xool situation wu Afrique ci euh, nawetub 2020 alerté woon nañu mbooleem réew yi may waaj lim muy euh, Niger Burkina Faso euh, ak itam Mali ni ki Mauritanie Sénégal Gambie Guinée-Bissau Cap-Vert ak Guinée Conakry ni ki Côte d'Ivoire Tchad Togo Benin Nigéria ni leen kat boo saaganee di ngeen inondé ndax ren jii dina taw ci yéen taw bu bëree bëri boo xam ne dina jafee xayma lool daanaka boo xaymaa boo cumulé maanaam li taw lépp ci diggante 1981 ba 2010 lépp boo ko dajalee mun naa sottee kondo ci menn atum 2020 kon teel leen a jël seen ay motuwaay ndax la muy indi ci ay conséquences mooy ci wàllu changement climatique bi dana indi ay catastrophes naturelles yu doy waar ay inondations ak sabab ñu évacuer ay nit buñ ca noppee itam dina sababal askan wa ñu évacuer ay xeetu tawatu pathologie yu doy waar yu mel ni sibru mel ni diarrhée mel ni choléra ak yu mel noonee ba noppi itam ni leen taw ba mën naa yàgg yàgg ba nga xam ne gàncax ga daañu koy yéex a récolter kon mën naa indi yeneen yàqu-yàqu ci kaw gi kon teel leen a jël seeni ay motuwaay jamono ji nag la ñu waxoon gouvernement yu gouvernement yu bëri ci Afrique jotoon nañu boobu les rapports waaye siiwa lu ñu ko woon mooy lee taxit gis ngeen fi nekk nii ñu ngi ci jamono inondation la ñu waxoon nag bu fekkee dañu mu des yeneen i partie yu ñu mën a xaar te mu mën a sonal askan wi mel ni ki siburu mel ni ki itam gàncax gu yàqu ndax ñorte kenn dindiwu ko muy beneen njombe buy dal ci waa kaw gi te mën a répercuté wu ci développement bu réew mi yëpp ak itam wàllu koom-koom mu réew mi yëpp kon mu mel ni rek ci buñ ñu ci météo daanaka talaatay tey jii dong la ñu wax ni xëy na mun naa bañ a taw taw ba day daal di continuer Euh, te gis ngeen saa si tembe ñu ngi ci ay jafe-jafe waa Greenpeace ñoom itam wax nañu ci wàllu inondation yi joxe nañu seen xalaat itam ci plan bu ORSEC bi nga xamante ne bi moom la njiit réew mi déclenché jàpp nañu ni doyul doyul ndax itam bu ñu seetee ni taw bi jeexagul xaaju sax nag bay jeex ci Afrique yi te annoncé woon nañu leen ko ndax gis nañu ni fukki gouvernement ak juróom yi nga xam ni ñoo nekk ci CEDEAO tënku ci xamoon nañu ni inondation dina ñëw ci seen kaw te bu jeexee itam bekkoor moo ciy tegu gu doy waar yooyu yëpp nag di ci gën mooy sàmm suñu climat bi ñoŋal ko ba nga xamante ni bii daañu mën a mucc ci euh, catastrophe yooyu nga xam ni euh, day bari na lool ay ngi ci askan wi surtout ñi seen loxo jotul seen ginnaaw ak ah, kay Sénégal sax nag mënees na cee dëggal loole nga xam ni juróom benn nit faatoo gum nañu bi taw bi commencé ak léegi muy ci week-end bii rek ñu weesu Dakar Kaolack Sédhiou ak yeneen ci ay régions yoo xam ne yëf fii laal na leen misaalu Saint-Louis.